ñoo ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ñoo ngi balu àq ñépp di leen baal àq di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala koor gi ñu jóge liñ ci woor mu nangul ñi ko liñ ci rëccile mu jéggal ñi ko te mu barkeelal ñi liñ ci woor te mu nangu ko gannaaw loolu ñi ngi am ak njéggalu gu matale ci mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ci groupe bi ci ginnaaw boo xam ne sant nañ ab tem boo xam ne ki ñi ko sant moo ñi ko dàq te mooy sant ñi ñi def tem ci nan lañuy ñuy tuubee ci gàttal cause yi nga xam ne fala sukkandiku mu ne ba sant ñi ko wax nañu cause yooyu kon li mooy firndeel moom mooy moo ñu ko gën a xam ndaxit gis nañ ne mu ne nit dana tuub dugg ci diine ji mu mel ni jàngaleñ ko ci diine ji dara ndaxit ni mu mel balaa moo tuub ak ni mu mel bi mu tuubee walla ni mu meloon balaa moo tuub ak bi mu tuubee ni mu mel mel ni ak sërëwante amu si safaan ba it koo xam ne ba mu tuubee gis nañ ne lépp loo xam ne lu mu nekkoon la bu njëkk da ko bàyyi ba mu jeex tàkk waaye topp li nga xam ne moom la ko diine ji digal waaye boole ko di jàng yokk xam-xamam ngir gën a euh, mën a dëgëral toogaayam ci diine lislaam ñu ne ñu gis nañ ñaar am na ñu ne lu mel noonu de su fekkee am na gis nañ ne kon farata la ñiy fàttalewante tuub mooy lan ndax nit ki day ñëw la nga ko waxal ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rek bàyyi ko mu dem su fekkee ne mbir ma noonu lay continuer da dem mu delluwaat sa ay nitam mën naa delluwaat sa ay sàngaraam mën naa delluwaat sa ay njaalu ngi jigam ak yeneen yu bare bari yoo xam ne xamul ne baat bi làmboo na loolu te fekk na baat bi làmboo lu ëpp loolu moo tax ñun suñu biir waxtaan si bunt boobu du mën a gudd ndax bunt bi dafa gudd lool waaye nag ay borom xam-xam keese keese ñoo fi nekk kon xëy na léegoo léeg ñu jàng ab xadis wala aaya duñ firi lépp lañu ci soxal rek lañuy firi léegoo léeg am luñ jàng ci wolof mu mel ni aaya ba lay firi waaye duñ jàng jëmmi aaya ba kon képp koo xam ne mu ngi topp mën naa dégg ñi liir dara si arab te bu ñuy firi bañ koo firi waale wala loo xam ne dañ koo firi kese te jànguñ yax ba te fekk loolu lañ ci jublu kon képp koo xam ne mu ngi topp uh, waxtaan wi na ci bàyyi wàlla xel loolu li ñuy njëkk a xamlante ak yéen mooy lan mooy maanaam ashhadu an laa ilaha illa allahu maana shahadatayni bu ci paree ñu xamal lan mooy maanaam shahaadatu anna muhammadan rasulullah muhammad ndawal yàlla lan mooy maanaam bu neexee yàlla danañ ko xamliwante ak yéen ci tënk nag lay doon ñetteel ba shahaadatayn mooy ashhadu an laa ilaha illa allahu dafa am ay charte yu bari incha allah danañ sa xamle yenn shahaadatu anna muhammadan rasulullah dafa am ay charta danañ ci tudd yenn waaye yooyu suñ ko waxee lan moo tax danañ sa xam ne dara waaye fi ñuy jeexalee mooy yii yëpp nag boo amee ndax dafay continuer wala mën naa yàqu si fekkee mën naa yàqu lan moo ko yàq incha allahu ci nu waxtaane foofu lañ koy jeexalee ñu ngi nuyu mbokk yëpp di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu mën koo mottali ci nii ñu bëgg koo commencé ci bismillahi rahmaani rahim fas yéene jeexal ko ci jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñi ngi ñaan yàlla lépp loo xam ne ab rëcc rëcc la bu ñu dal ci biir mu jégal ñi ko waaye ñu ngi ciy jégal mbokk yëpp lépp loo xam ne dégg nañ ko ci biir waxtaani muy loo xam ne wuutee na ak diine nañ xam ne ñàkk xam-xam rek la ak làmmiñ wu ñu jiitu ci loolu la waaye doon na pas-pas bi la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa euh, bismillahi rahmaani rahim mbokk yi kon ñu ngi ci ni leen ko waxoon ci tomb bu njëkk bi te mooy maanaa shahaadat an laa ilaha illa allah loolu nag mu allif bi nee na mu fas ci xolam mu saxal ne amul kenn ku xeeyoo ñi koy jaamu ku dul yàlla loolu nag bu ko saxalee da koy waral waaye mu jëfee ko ndax baatu laa ilaha mu ne dafay dàq lépp loo xam ne ñu ngi koy jaamu illallahu dafay saxal ne yàlla rek moom lañu war a jaamu kon baat bi mooy buñ koy firi nii lañ koy firee mooy laa maabudun bi xaqin illallah amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg jaamu ga am njëriñ ñàkk gaay jaamu ga am lool ku dut yàlla su ko defee bu waxee loolu dafa am ñetti firihin yoo xam ne dañ koy fire baat bi waaye bu ci nekk ak wàññeeku daf si nekk am boo xam nag moom moo matale yépp mooy tafsir bi nga xam ne moom la war a baat bi te mu wér ndax nit ki su waxee ne lépp lu ñuy jaamu yàlla la su ko waxee mooy kon ku ñuy jaamu jaamu gi di dëgg yàlla la ku ñuy jaamu ci neen yàlla la ñu ne kon loolu du matt keneen ki mu ne amul kuy bind ku dul yàlla ñu ne ah li nga wax de wér na waaye na xaaj la ci baat bi ndax baat bi kat li mooy jublu li mooy firi moom ëpp na loolu yow saxal nga benn ci xaaju tawxiid yi kem ni nga xamee ne tawxiid dafa séddlikoo si ñetti xaaj am na lu ñuy tuddee tawxiid rububiya soo waxee laa xaaliqa illa allah saxal nga benn xaaj ci tawxiid yi waaye nag firuhoo baat bi ci li mu làmboo boo waxee laa xaakmiyata illa allah ba tey saxal nga benn xaaj waaye nag li baat bi da firi ba léegi euh, firi googu kon tafsir bi ñu war a firee baat bi te mu wér mooy nekk laa maabudin bi xaqin illa allah kenn ku xeewoo jaamu jaamu ga am njëriñ ci doomu aadama bi ñàkk goy jaamu am lor ci moom ku dul yàlla loolu mooy benn bi maanaam shahaada anna muhammadan rasulullah loolu nag mooy nit ki mu seede ne muhammad jaamu yàlla xëy na sa njër bi mi waxoon nañ ashhadu an laa ilaha illa wahdahu wa njumte la kon nit ki dugg ci diin gi lu mu war a wax mooy ashhadu an laa ilaha illa allahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah léegi ne lan mooy maanaam eh, shahada anna muhammadan rasulullah mooy nit mu nangu li feeñ ak li nëbbu ne muhammad jaamu yàlla la yénente yàlla dañ koy yónni ci nit ñépp su ko waxee nag dafay jëfe li nga xam ne moom la baat bi eh, làmboo yépp ci wàllu topp sunu borom subhanahu wa ci lépp loo xam ne digle na ko waaye mu dëggal bépp xibaar boo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa indi na ko waaye mu teet lépp loo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa tere na ko te mu ŋàññiti te bu mu jaamooti leneen nag lépp lu mooy loo xam ne moom la sharia digle ñi koy jàmm léegi nag baab bi dafa am ay ponk yu mu làmboo ponk bu njëkk bi mooy nit ki day saxal ne mooy nit ki day saxal baat bi ne ponk bu njëkk bi dafa séddlikoo ci ñaar xaaj mooy dàq dara saxal dara tayib dafa dàq dara mu tax lim lim dàq lan la mu ne fa rukk na awal an nafi laa ilaha loolu su ko waxee dafa dàq ndax lépp loo xam ne jëm na ci wàll bokkaale ci mbooleem xaajam yi loo xam ne dafay waral nit ki nekk yéeféer wala mu jëf jëfi yéeféer wala lépp loo xam ne ñu ngi koy jàmm lu dul yàlla dafay dugg ci laa ilaha ponk ñaare bi mooy day saxal illallaha moom day saxal ne dara yeewu ñu jàmm ko lu dul yàlla loolu nag dafay waral ñu jëfee baat bi kem ni nga xam ne moo noonu yàlla suñu borom subhanahu wa taala waxee ci sootu baqara ci aaya 256 fa man yakfur bi taaxuuti wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwati l wusqa lan fi saam ngeen jégal ma fa man yakfur bi taaxuuti wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwati l wusqa képp koo xam ne weddi nga li ñuy jàmm li muy taaxut lépp lu ñuy jàmm lu yàlla taaxut la euh, tawaaxit nag am na ay xeet moo xam shayaatinul insi wala jinni la bu mën a doon daal nit ki daal képp koo xam ne weddi nga taaxut kon weddi nga dara wa yu'min billaahi nga gëm yàlla kooku la yàlla ne faqad istamsaka kooku de jàpp na bil urwatil wusqa wusqa mooy jàpp na si buum gi nga xam ne du rawenciku buum gi nga xam ne fas na te mooy bu gi dëgër nga xam ne ku si jàpp jàpp nga fu dëgër moom la yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di firi ci aay boobu kon fa may may yekk bi taaxooti mooy ponk bu njëkk bi dafa dàq mooy mooy laa ilaha wa yumin billahi mooy ponk ñaare ba mooy illallah kem ne noonu la bi nga xam ne noonu la ibrahima alayhi salaam waxee ibrahima alayhi salaam bi nga xamee ne mu ngay jànkuwanteeg bàyyi ja sa mbir yam nekkoon ba jàpp ne moom kat mën naa jëlee bàyyi ja sa lam nekk kem nam ko leeral ci beneen suura ibrahima bi mooy daawax bàyyi ja ne nag yaa abati li ma taabudu maa laa yasmau sama baay wala yow sama simbaay lan moo tax ngay jaamu loo xam ne boo ko woowee du dégg sax te wala yubsir loo xam ne mënu laa gis te wala yughni anka shay'a loo xam ne du la jëriñ dara gis nga ko bu ko waxee li ma tabadu maa laa yughni anka shay'a rek daf doon doy waaye gis nga ko li ma taabudu maa laa yasmaa wala yubsir wala yughni anka shay'an bàyyi ji mel ni ba tey dégg ko mu andi ko inni xad jaani min al ilmi maa lam yatika fattabini ahdika siratan sawiya mel ni affaire dafa të ba nga xamee ne topp na ko ba mbir ma mënatula dem daf na ko innani baraa'u mimma taabuduun man de dëñ naa ci li nga ne moom ngeen a jaamu kon dàqal na ko lañuy ñuy jaamu te mooy ak yéeféer mu ni ko illa alladi fatarani mu woo ci lim ko bëggoon wax te mooy man de damay jaame ki nga xam ne moom ma bind lu mu ci teg illa alladi fatarani fa innahu sayahdini ki nga xam ne moom ma bind te moom ay gindi kon dàqal na waajuru lépp la mu nekkoon de jaamu wan ko ne li nga doon jaamu lu dëgg waaye saxalal na ko li ñu war a jaamu te mooy yàlla sunu borom subhanahu wa taala la inna nii baraun dafay dàq ponk bu njëkk bi gis nga ko illa allati fatarani isbaatu fi rukuni saani kon nag ponku shahaada anna muhammadan rasulullah moom it dafa am ñaari ponk ñaari ponk yi mooy ban danga ne abduhu ne wa rasuluhu kon ñaari baat yooyu lan la làmb bépp jégg dayo boo xam ni nit ki dana koy jégg dayo si muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa muhammad jaam la kon dangay xam ne nit la waaye mu ne ndawal yàlla la kon te yonent bi eh, yàlla sunu borom wa wax na ko te beneen aaya mu ne qul innama ana basharu mislukum yuuxaa ilayya man nit laa kem waaw damay am problème kem ni ngeen amee problème damay denc kem ni ngeen a dencee di xoor kem ni ngeen xooree li fi nekkee mooy innama ana basharu mislukum moom lu leer na waaye yuuxaa ilayya laa wuutee ak yéen mooy nag wàllu sharia bi lépp lu mu leen a wax day jógee suñu borom subhanahu wa taala waaye du nekk loo xam ne sama bakkan laa koy tibbee rek da leen ko wax ndax gis nga kalimatu baatu jaam day loo xam ne yàlla dafa tagg yeneen tamit sallallahu alayhi wa ci ay yu bëree bëri bëri ndax it muhammad baat boobu day baat boo xam ne moo ko teral kon jéem koy def lu ëpp jaam mooy war a jégg daya boo xam ne nit ki moo koy def ba dugg ci yoo xam ne mën na ko génnee ci diine ndax yàlla wax na ko ci aaya ne ko alaysa allahu bi kaafin abda delloo ne ko alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitab subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaram kon ñetti place yoo xam ne bu nekk lim ko màggalee mooy jaam te yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li mu bëggoon ñu koy màggalee mooy baatu jaam su ko defee loolu mooy abdu ar rasulu mooy almabuus ila nnaasi kaafatan bi daawat ila llahi bashiran wa nasiran waaye mu ne maanaa ar rasulu mooy dañ ko yónni si nit ñépp kem nañ la nga waxe woon sa gannaaw waaye mu leen woo ñaari mbir bashiran wa nadiran mooy da leen waaye da leen waar maanaam dana leen bigal bashiran dana leen bigal ne leen lii de ku ko def sa mooy àjjana waaye dana leen waar ne leen lii nag moom ku ko def sa mooy safara kem ni yàlla sunu borom subhaanahu wa taala waxee te beneen aaya ne ko inna arsalnaaka bil xaqi bashiran wa nadiran baatu shahaada boobu nag dafa am fuñ fa war a taxaw ndax kem yenent bi sallallahu alayhi wa alihi ni mu xam leene ne jaam la war naa tax nit yi xam fi ñuy teg seen tànk xam ne kon jaam day jaamu waaye jaam duñ ko jaamu ndaxit buñ ko jaamoo danañ def leneen lu wuuteeg li leen digaloon te ba ba nit ñëwee ci moom ne ne ko bu neexee yàlla ak yow lan la ko waxoon man ndax danga may dindale ak yàlla waxal bu neexee yàlla rek kon gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam toujours dafay dàqaloo nit ki lépp loo xam ne mën na koy génne ci milla lépp loo xam ne mën na koy génne ci diine su ko defee bépp soxla boo xam ne nit ki soxla na ko ndax yonent bi sallallahu wa alihi wa sallam la koy ñaan wala yàlla la koy ñaan déedéet yàlla la koy ñaan kon nañ moytu baat yi mooy bu neexee yàlla ak yenente bi defal ma eh, eh, nangam su neexee eh, ni ñu koy waxee ngeen jégal wala naan bi jaay rasulillahi maam di ñaan yàlla naan ko li nga may may ma ko ci darajaay yenente bi baat yooyu mbokk yi nañ ko moytu ñu yemale foofu son bu njëkk bi ñëw ci son ñaaree bi muy wax wala ñetteel bi li jëm ci wàllu sharta la ilaha illa allah bismillahi rahmaani rahim mbokk yi kon ñi ñëw ci shartaay laa ilaha illa mooy bu njëkk bi nit ki dafa war a xam baat bi lan lay dàq da ko war a xam war naa am yaqiin ci li ma wax maanaam benn sikk sàkk du ko ci fekk maanaam baat bi ma wax moom xam na li mooy wax te it lum fas la loo xam ne dara mënu tax mu mu sikk si dafay nangu it lépp loo xam ne baat bi da koy dàq waaye day nangoo womatu te bàyyi lépp loo xam ne baat bi da koy tere dafay nangoo sellal jaamu gi tey moytu lépp loo xam ne dafa jëm ci bokkaale beneen bi dafay dëggal baat bi li nga xam ne dëggal na ko waaye dafay weddi li nga xam ne baat bi weddi na ko bokk na ci itam dafay feeñal cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak li baat bi euh, ànd ak cofeel waaye li nga xam ne mooy safaan bi itam da koy moytu kon yii moom lañuy ñëw jéem koy firi ci gàttal son bi nga xam ne ci lañ nekk nii lu tax ñu wax ne nit ki il faut mu xam baat bi mu ne bi maxnaa almuraadu min wamaatan fii war naa xam baat bi li mooy dàq wama tusbitu mu xam li baab bi di saxal ndax yàlla sunu borom subhanahu wa ba mooy waxte ay daf ne illa man shahida bil xaqi wa hum yaalamuuna ba mu des ñi nga xam ne baat bi moom bañ leen ko waxee ñoom de xam nañ baat bi li mooy tekki te it ci jamono boobu gëm nañ ko maanaam seede nañ baat bi dëggal ko te xam nañ li mu làmboo ndax su fekkee ne seede nañ ko dëggal nañ ko waaye xamuñ li baat bi làmboo kon du mat bu ñaare ba mooy ki nga xam ne moo koy wax mu am kóolute ci sunu boroom subhaanahu wa taala bu mu am benn sikk sàkk boo xam ne mooy tegtale lii wala lu koy dàq ndax yàlla sunu borom subhaanahu wa taala daf ne innama almuminuuna alladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartaabu suratu xujuraat aaya fukk ak juróom yàlla sunu borom ba mooy tagg mu ne alladina amanu billahi wa rasuli mooy ñu nga xam ne ñoo gëm yàlla gëm yeneen tàmb su ma yar taaboo te amuñu benn sikk sàkk waaye dañ ko dëggal ndax su fekkee ne nit ki dafa wax baat bi ba pare di sikk sàkk ndax dëggal la wala du dëgg kooku dafay mujj nekk naafiq euh, loolu nag du suñuy waxu boppam waaye mu àllif bi moo ko wax parce que ñun li ñuy wax yëpp ci téere lañ ko jëlee waaye du si leen loo xam ne ñoo ko gëstu suñu bopp ndax it yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moo xam ne képp ko ceede ne amul kenn ku yeeyoo ku du dëgg te ba mu wax mu wóolu wóolu ko xolam bi fas na ko ci nee na yonent mu ne kon kooku dinaa ko bégalee aljana kon duut lu ndaw ndax baat bi liñ ci digg ki ko wax te gëm ko àjjana lañ ko digg te jàpp naa ne bépp jullit boo xam ne e, mu ngi nekk jullit la mooy mébét mooy àjjana mooy nit ki dina nangu ci lépp loo xam ne baat bi làmboo na ko ci jaamu yàlla moom dong waaye lépp loo xam ne du yàlla ñi koy jaamu na nit ki xam ne moom e, du ko nangu kem niñ ko waxee woon du ñu nekk da firi baat yëpp ndax ay olof la ñu waxat waa yàlla sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ci ayab innahum kaanu ida qiila lahum laa ilaha illa allahu mu ne ñoom dee duñ leen waxee ne jaamu leen yàlla dong te bu leen ko bokkaale ak keneen dañuy réeréelu waaw ndax lu tax mooy da ndax dañu am ay xërëm yoo xam ne moom lañ gëm ñu ne ko nag ndax da nga bëgg ñu bàyyi fa suñuy xërëm di topp seen waaj seen dof bi de duñ ko topp dafi bàyyi suñu xërëm yi nga xam ne moom la ñuy jëlee si suñuy maam donn ko te xam ko te suñuy aajo ñooñu koy fajal mu ne ñooñu sax de seen seen mbir de mu ne daanaka bu mu la yéem de mu ne dafa mel ni ñi nga xam ne ñoo fi nekk di jaamu baameel ndax it ñoom soo leen waxee euh, baat bi dañ ko dëggal waaye terewul nag moom buñ demee ci baameel yi moom day mel ni baat bi duutoon luñ jàng ndax jaamu xafru Euh, wala baamel niñ koy waxee ci yenn barab yi su fekkee ne euh, nit ki mu ngi koy def dem ta baamel ba war a ñaanal ka fa nekk waaye mu àgg dañ ñaan ka fa nekk wala mu jàkkaarloo baamel bi ndax li gën a euh, yéesati ne mu ngay ñaan soxlaam su boobaa kooku julli yi mooy def jaamu yàlla yi mooy def waaye baat bi nga xam ne seede woon na ko dafa mel ni ba léegi li tax a jóg baat bi moom xamagul ko kon sartaam ñeenteel mooy nit ki nag day womatu nag su waxee bal pare day womatu jëm ci moom kem ni ko yàlla sunu borom subhanahu wa taala waxee wa man yuslim wajhahu ila allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati wusqa ay ñett ci suratul luqmaan yàlla sunu borom dafay xam ne ne ki nga xam ne moo jébbal boppam ki nga xam ne moo jébbal boppam boromam nee na kooku dee mooy ki nga xam ne baat bi biñ ko ko waxee. moom da koo gëm ànd ak rafetal bu ma sëkk kooku la sunu borom xam ne ne kooku dee moo jàpp ci buum gi nga xam ne ku ci jàpp moom mooy buum gi war a jàpp ku ci jàpp it ku ci jàpput mooy buum gi ñu jàpp te mooy buum gi nga xam ne moom la nit ki da texe te buum boobu ku ko topp ànd ak nga sellal ko ajina mooy li lay xaar. bu juróomeel bi mooy dëggu nit ki il faut baat bi bu ko waxee da koy dëggal ci xolam waaye du yem ci làmmiñam yi donte wax na ko ci làmmiñ su ko waxoon ci dëgg lu ko ci xolam kooku naa fekkale kem ni ñu ko waxee ci gannaaw mi ngi yàlla sunu borom subhanahu wa taala wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil axiri wa ma hum bi muminin yuxaadicuuna allaha walladina aamanu ci sootu baqara wa ma yaxdacuuna illa anfusahum wa ma yascaruun bal wa lahum cadaabun aliimun bima kaanu yakdibuun mu ne am na si nit ñi ne boo leen waxee ne gëm leen yàlla gëm bit pénc ñoom dafa mel lu doy leen ngay jigal mu ne am na si nit ñi ñoo xam ne ñoom de dañuy wax ne ñun de gëm nañu yàlla ni kem ni ngeen ko gëmee gëm nañu bis penc kem ni ngeen ko gëmee waaye yàlla moo leen tontu mu ne ko maam bi mu'miniin mu ne gëmuñu yàlla ndax lu tax yuxaadi'uuna allaha wax biñ koy wax dañ ko wax pour ay naxante maa jàpp ne mbir mu teg diil la dangay teg diil la pour génn si waaye yàlla mu ne walladina amanu bokku leen de waaye nag comme yàlla nee na wa maa yaxdawna illa anfusahum loolu moom noppale na dafa mel ni xissa eh, yonent yàlla luqmaan boobu eh, ngi jigam wala sa waaju xër jooju ñuy nettlu ci téere udabaaw yi nga xam ne daanaka ñaare bu ñuy wax nit ki dafa tifa rek moom ngay dégg ñi tudd ko ah, su ma juum saabaan ibnu waayil lañ ko doon wooyee nga xam ne daan rombo xale yi ñi toog ñu ne muy leen kët sàngam di am na lu fay séddale xale yi jog daw mu toog ab diir gisul leen mu ne ah ma ndax li ma waxoon du dëgg mu daw topp leen ku mel noonu nag nu mooy naxee boppam naafeq bi noonu lay naxee boppam mooy day wax ak nit jàpp na nit ki comprendre fu mooy waxee te fekk yàlla sunu borom subhanahu wa moom la séq ak mbir mi waaye li may wax ci làmmiñ bokkut takk li xol bi fas waaye nag ñooñu yàlla xamal nañu seen mujj te mooy walahum azabun alimun bi ma kaanu yakdibuuna mbugal mu mujj mu métti mooy leen xaate li ko waral mooy wét eh, fen yi nga xam ne doon ko fen ñu ñëw ci chata juróom-benneel bi boobu nag juróom-benneel bi mooy sellal maanaam nit ki il faut muy seet ay jëf yi nga xam ne mu ngi koy jëf waaye di ko lay di xool lépp loo xam ne ak njaxas la mu mën a fexe ba mucc si lépp loo xam ne bokkaale la mu mën a fexe ba mucc ci te li nga xam ne lépp loo xam ne poñetam àddina la warul fexe-fexe ba mu koy dugal ci yenn yi nga xam ne mooy dugal ñu bëri waaye lépp loo xam ne jëm jëm ci wàllu ngistal parce que ngistal dafa bokk si bàkkaar yu mag yi ndax shirku asxar la wala lépp loo xam ne wàllu ndéggatal la nga xam ne bu koy def pour nit ñi naw ko rek moo tax mu koy def waaye yàlla taxatu mu koy def loolu yëpp nit ki da ko war a euh, peek moytu su fekkee ne baat bi wax na ko ba pare ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ne fa inna allah xarama ala naari man qaala laa su fekkee dafa ne képp koo xam ne euh, yàlla xaraamal na ci jëm doomu aadama bi safara képp koo xam ne wax na laa ilaha illallah loolu suñ ko waxee dafay fekk nit ki ba mu koy wax mu wax ko li waji laay duut dañ ko forcé waxloo ko ko duut lu mu gis loxoy jullit yi te xamem ko moo tax mu wax ko waaye da koy wax ngir dëggal ko euh, mooy tax mu yeeyoo digge boobu noonu bu juróom-ñaareel ba mooy almahabata li xaatil kalima maam baat bi day nekk loo xam daf ko bëgg lu tax ñu wax loolu dafa am yàlla sunu borom daf ñuy mel ay nit ñoo xam ne dañuy jël ñu dut yàlla ñi def leen kem yàlla waaye ñu bëgg leen kem ni ñu bëggee yàlla walla kem nu ni ñu bëggee yàlla wa min annaasi man yattaxidu min dunillahi andaadan yuhibbuunahum ka xubbillah nit ki war naa fexe xoyof boppam bu mu ko yóbbu muy bëgg nit kem ni muy bëggee yàlla waaye walladina amanu ashaddu xubban lillah noonu ko yàlla àggale kon baatu laa ilaha illallahu nit ki su ko waxee daf tey jublu mbëgg-mbëgg yàlla mu sellal ko lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu bokkaale la mu moytu ko ba mu jeex tàkk kon ci beneen son bi ñëw dañuy wax shuruutu shahaadati anna muhammadan rasulullah shartaay muhammad ndawal yàlla la bismillahi rahmaani rahim kon ñi ñëw ci seede ne muhammad ndawal yàlla la loolu nag dafa am juróom-benn xaaj yoo xam ne xaaj nañ ko ci xaaj bu njëkk bi mooy dafay nangu ne leetar bi nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa na ko ci yàlla la jógee te moom mooy ki ñu yónni loola da koy fas ci xolam bi buñ ko waxee mooy baatinan fil xol bi du mbir moo xam ne wax ji rekk dafay doy waaye pas-pas bi xol bi da koy làmbaale kon bi njëkk mooy na ko fas sa xolam bi bu ñaar ba mooy na ko tudd tudd bi nag ci biti làmmiñ mooy mu wax ñu dégg ko bu ñetteel bi mooy al mutaabaat lahu maanaam wax ji kese du doy waaye am na lu ñuy tuddee tawxiidu mutaabaa xam nga boo demee ci tawxiid waxoon nañu ne tawxiid ba am ñett xaaj waaye am na beneen tawxiid buñ ci yokku te mooy tawxiidu tawxiidu mutaabaa mooy dafay jëfee lépp loo xam ne baat bi làmboo na ko waaye bàyyi lépp loo xam ne baat bi tere na ko te mooy kem lañ doon leeral si gannaaw di jëriñu te jaaraat bu ñeenteelu mooy dëggal bépp xibaar boo xam ne yenent bi indi na ko moo xam lu ñu mën a teg bët la moo xam lu ñu mënta teg bët ndax it yenent bi loo xam ne moo xam passé na wala lu ñëwagul la li mooy rañaan gi nga xam ne rañaan noonu na ko dem si loolu nit ki ko war a gëm li ñëwagut mooy am na loo xam ne xamoon nañ ko ci yomal xiyaama ak yeneen yeneen yoo xam ne nit ki da ko war a gëm dëggal ko bu juróomeel mooy bëgg gi ngay bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam war naa gën a tar ni ngay bëggee sa bopp ak ni ngay bëggee sa alal ni ngay bëggee sa doom ni ngay bëggee sa waajur waaye ni ngay bëggee ñëpp te yooyu yëpp incha allah dinañ ci indi ay leeral juróom-benneel ba mooy waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ moom lañ war a jiital ci waxi ku mën a doon maanaam bépp ñaari wax buñ ko tegee sa kanam ñu ne la lii yonent bi wa sallam moo wax lii diwa ko wax waxi diw ja moom sax wala nga koy xool waxatuma nga koy jiital li wax ne yonent bi sallallahu wa sallam moom nga gën a war a gën a bëgg si sa bopp wala si ñeneen buñ ci doon joxe misaal mooy nit kii dem xare bëgg na bakkanam wala bëgg bëggul ko bëgg na ko waaye digg bi ci yàlla diggale te yonent bi sallallahu alayhi wa wax ko moo tax mu subu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mos na ànd ak Seydina Omar ñiy doxantu Seydina Omar xamal ko ne de yow dee yaa ma gën a bëgg lépp ba mu des sama bakkan bi yenente bi ne ko déedéet sa gi mbëggeel gi des na mu deel na ko léegi de yow laa gën a bëgg ci sama bopp ba ci sama bakkan bi yow laa gën a bëgg mu ne ko waaw mbir maa ngi doog a mat kon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa xasee wax dootuñ xool beneen wax walla jeneen wax ak ki ko wax ak ku mën a doon waaye nag baat yooyu ñu wax dafa am lu mooy làmboo maa maanaam shahadat an laa ilaha illallahu mooy bàyyi lépp loo xam ne du yàlla mboolem yi ñuy jaamu moo xam amal nañ ko dalil moo xam amul luñ ko dalil ndax jaamu yàlla moom dong ñàkkoo koo bokkaale ak kenn wala leneen day loo xam ne nit kii da koo war a saxal muy sax bu wér waaye ndax ki ñuy tuubal tey jii danañ ko xamal loolu mbokk yi dafa am benn xissa muy benn waay boo xam ne mu ngi ci réew mi ñu nekk mu ngi dëkk ci réew yi Afrique yi réew mi mu dëkk bokk na ci réew yi gën mag ci wàllu lislaam maanaam yi ëpp mbooloom population boo xam ne ay musulman lañ dafa ñëw fii mu bëgg soxna ñi tegal ko charte pour mu tuub ñu doog ko mën a may soxna mu tuub ñi may ko soxna ñi am ñaari doom waaye biñ ko tuubalee yi nga xam ne moom lañ ko wanoon ne ko tuub mën koo ñàkk am bi mu tubbee dafa delloo yëpp wala da ko maye mooy dañ ko wanoon ne ko kuy tuub il faut nga am satala il faut nga am basang il faut nga am sijaad mu jënd yi yëpp ne moo ànd a tuub gi moom moo nettali mu ne benn bis mu dem julli ji jumaa mu ne mu gis benn waay moo nekk ci kanamam bi ñu rukkoo mu gis ndiggee fees dell ci ay ndombaak yeneen yu mel ni yooyu nee na mu laajte lii lu mooy jëriñ nga xamal ko ne ko lii de mooy aar jëmm ji mu laaj leen ban façon aar ñu wan ko ne ko bokkuñ lii nangam la lii nangam la lii nangam la moom mu ne lañ ko jëlee woon fële ba mu ñëw ci lislaam foogoon na ne lislaam baa diñ ko waxoon ak lañ ko saxoon bu bu ko nit xasee gëm yii yëpp moom da ko war a sànni fële mu ne comme moom comprendre islam bi bi mu jógee si jumaa ji ñi teg tekki semaine ci kër gi mu nekkoon ci atelier bi fa la ñëw ñi nga xam ne ñuy liggéey ci atelier bi kenn ki mu may ko kurus gi kenn ki mu may ko siyaada bi lu waral loolu mu ne comprendre ko islam sëy ba kon da dem te jàngoon nañ ci téere fiq yi ne góor goo xam ne duut jullit warul mën a denc jigéen goo xam ne jullit la waaye sëy ba da continuer ba léegi sëy ba ñi nga xam ne ñoo war a tas tasuñu ko sëy baa nga continuer lu waral loolu mooy nit ka yi mu tuubee woon baat yooyu ñu leen wax ci gannaaw dafa am yu ci desoon te bi nga xamee ne sëy bi euh, nit ki murtat na parce que dafa gën ci diine yi kon dafa murtat charte yi nga xam ne moo ci waroon yëpp euh, àggee àggee wuñ ko ko wala ñi nga xam ne ñoo tuubaloon ndaw si ak càggante moo am si ñoom waaye li may wax nii fi mu toll mat na juróom-ñaari at te yëg naa ne ñoom ñaar ba léegi ñu ngi ci sëy te góor gi du jullit nekkatu jullit te jigéen gi ba léegi jullit la loolu nag benn antal parenthèse bu mu doon def rek la pour léegoo-léeg baat yi nga xam ne maanaam nit ki day gëm yàlla pare mel dafa am leneen lum koy booleet te yooyu nag ñi koy booleet moo xam bu ci mën a doon moo xam dañuy saxal mbir si yàlla loo xam ne yàlla yelloo ko wala ñi melokaan la yeneen melokaan woo xam ne meloo ko wala ñi melal ñiy dem da euh, euh, jaamu ay baamel wala ñiy seede ay nen wala lépp loo xam ne taaxut la wala tawaaxiit la bu mën a doon donte garab lañuy ñuy jaamu donte ay doj la ñuy bu mu ci mën a doon nit ki daal boo xasee gëm yii yii moo koy tere yooyu kon dafa bokk ci tawxiit dafa am ñoo xam ne dañuy gëm ne tawxiid bidaa la dañ ko weddi weddi lépp loo xam ne yeneen tey ñu ngi koy xoote waaye ñi koy ayibal wala sax ñiy sellal ñiy sellal leneen loo xam ne du loolu li gën a garaaw mooy ñi nga xam ne ñi xoote tawhid imma ñi yéefee loo leen wala ñi wéddi lañuy wax li ñuy woote ne loolu amul loolu waaye ñi tekki da leen ayibal ci ayib yoo xam ne lu feeñ la te boo bokkut ak yi nga xam ne yu nëbbu la waaye nag ñi sellal leneen loo xam ne yeewu sax nit ki war ko topp kon shahada anna muhammadan rasulullah mooy nga topp ko nga dëggal ko bàyyi lépp loo xam ne tere na ko lii daal mooy gàttalu wax shahadatu anna muhammadan rasulullah ndax lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu bidaa wala lépp loo xam ne lu ñu sotlu ci diine wala jiital benn wax ci wax yenente bi sallallahu alayhi wa dana waral nit ki mu nekk ab yéeféen kon nag baat yi suñ ko waxee dafa am loo xam ne moo koy yàq foofu lañuy ñuy jeexalee suñu waxtaan kem niñ leen ko waxee woon ki nga xam ne moo ñu sant tem ba xam na ne mënuñ ko mu sant ñi ko comme moom mi ko man nag defu ko waaye mu sant ñi ko ñun ñi ko manut ah dañu xam ne kat lu ci yàqu ñun la moo taxi seen son yi dana bari dana gàtt wax ji dana bari waaye njëriñ li dana néew bismillahi rahmaani rahim mbokk yi bi ñuy jeexalee comme wax ji moom bëri te njëriñ li bariwut misaas ci jarut di ko guddal mooy dañ la wax ne ashhadu an laa ilaha illa allahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mooy dugal nit ci diine lu tax gëm gim ko gëm fas gi fas kóllëre gi mu faslante ak yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wa mooy gëm ne kii moom lañu war a jaamu mooy yónni charte yooyu bis bu demee ba nit ka weddi ko mooy lam yàqu na ndax ñaari baat yi moom la tuddoon ba dugg ci lislaam ñi nangul ko ko ñaari baat yi kon bis bu demee ba nga ni ne wéddi na li baat yi làmboo wala mu leen li nga xam ne mooy shaaira islaam mu wéddi ci benn bu xurujee baat bii rek na xam ne kon kóllëre gam faslante woon ba nga xam ne moo ko dugaloon ci jullit euh, génn na nee na nag yi nga xam ne ñooy génnee nit ki ci diine yu bari la boroom xam-xam fiq yi utal nañ ko baab bunt boo xam ne liñ ko tuddee mooy baabul ridda mooy buntu murtat waaye yi nga xam ne ne moo ëpp solo fukk la yoo xam ne ku ñuy wax cheikh islaam yi abdul wahab rahimahullah moo moo koy jàngale bu njëkk boobu nee na mooy ashirk fi ibadatillahi bu ñaareel ba mooy man jaala baynahu wa bayna allahi wasaid bu ñetteel ba man lam yakfur al mushrikin bu ñeenteel ba man itaqada anna hadiyi gayri nabi salallahu alayhi wa alihi wa sallam akmal min hadiyihi bu juróomeel ba man abgada shay'an mimma jaa bihi rasul sallallahu alayhi wa sallam walaw amila bihi kafara bu juróom benn ba man istahzaa bi cheyin min diini rasuli aw sawaabihi aw iqaabihi bu juróom-ñaareel ba mooy assixru bu juróom-ñetteel ba madaahiratu mushrikiina bu juróom-ñeenteel ba man ictaqada anna bacda annaasi yasacu alxuruuja an shariicati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu fukkee ba al iraadu an diinillaahi ñi demaat sa bu njëkk ba bu njëkk ba mooy nit ki su fekkee ne dafa gëm yàlla ba noppi mu bokkaale yàlla ci sababu bokkaale boobu mën naa waral mu génn ci diini yi ndax yàlla ka ne inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha nee na moom yàlla de mën naa jégale bàkkaar bu nekk ngeen jég bismillahi rahmaani rahim mbokk yi gannaaw bu ñu jégaloo ci dog-dog boobu nga xam ne am na te du suñu coobare dañuy wax ne yàlla sunu borom subhanahu wa dafa wax ne képp koo xam ne bokkaale na ko ak lenn moom yàlla nee du jéggale du jéggal kooku la mu jëf maanaam du jéggal bàkkaar bu mu mën a doon mën na ko jéggale ba mu des bàkkaaru bokkaale mu waxaate beneen ay mu ne innahu man yushrik billahi faqad xarama allahu alayhi aljanna wa mahwaahu annaar wa ma lilzalimina min ansaar yàlla moo ñu xamal ne képp koo xam ne bokkaale nga ko xaraamal na si yow aljana nit ki nag bu ñu xaraamalee te moom aljana la ñuy dégg mafhumul mu xaala ba ñu amoon te moom mooy kon safara la jëm waaye yàlla waxaat ne wa ma'waahu naar kooku de tapp waayam mujj waayam de mooy safara te wa maa li zaalimiin min ansaar kon min ansaar yàlla xam na ne tooñkat bokkaalekat de moom du am benn ndimbal te loolu nag buñ ko waxee bi lépp dafa am yeneen yi see dugg mooy rendi ci lu dul yàlla nit ki lépp loo xam ne mu ngi koy rendi moo xam ay xërëm ay xërëm lay moo xam ay tuur la wala yu demee noonu kenn wut parce que yéen salaat wax na benn xadis mu ne képp koo xam ne euh, ku rendi ci lu dul yàlla bokkaal ni yàlla donte euh, weñ la rendi wala nanga waaye comme da koo rendi ci lu dul yàlla rek na xam ne euh, bokkaale na ñaareel ba mooy koo xam ne dafa def digganteem ak diggante yàlla mel ni dafa am koo xam ne moo war a nekk intermédiaire wala moo war a nekk seen diggante wala moo koy jottali te yàlla nga xam ne buy ñaan kooku lay ñaan wala buy laaj moom lay laaj wala mu sàkku ne kooku moo war a ram lu dul yàlla wala muy wédu ci moom pour mu xam ne eh, ay mbirum daa jàpp na ne moom moo ko mën a faj loolu ku ko def moom ijmaa li ñuy tuddee ijmaa mooy kooku moom dafa weddi ijmaa mooy xam ne duñu wax ne ñee ko ñee ko waaye ñi ëpp ci ñi nga xam ne ñooy dogal ñoom ñoo ne mbir ma kat nii la tëddee ñu ne tudd al ijmaa boo demee ci usul incha allah di nga ko xam ñetteel ba mu ne képp koo xam ne weddiwut yéeféeri jàpp na daal moom yéeféeri xëy na liñ nekk moom Euh, xëy na euh, am na ay njumtu yu nekk waaye euh, yu bëree bëri ñoo ko gën jullit yi comme ni nga koy déggee ñu naan waaw moom day wax dëgg yàlla moom day tuubu de waaye nag jikkoom dafa baax wala jullit yu bëri moo leen gën loolu moom bis bu ko nit ki gëmee wala muy sikk sàkk na ndax yéeféer maanaam daal seeni weddi gi ñu def wala wala na daal xëy na nit mën naa weddi te mujj dugg àjjana yooyu noonu wala yi demee noonu bu mu mën a doon wala gëm ne sax xëy na jàpp ne seen yoon yi xëy na ak yoon lislaam daal bu ñu ko nattable ñoo tolloo wala wala moom mu xaw a lëng su boobaa kooku moom it euh, yoon si yoo xam ne bu ko nit ki defee man wax ne wéddi na bu ñeenteelu mooy koo xam ne gëm na ne ak gindeeku mën naa am si jógee kudut euh, jógee si kudut yonent bi sallallahu alayhi wa wala mu gëm ne am na ko xam ne li mu indi Euh, ak li yent bi indi xëy na ñoo loolu gën koo xam ne mbiram tool na foofu wala muy àtte woo wala gëm ne am na ate boo xam ne moo gën àtte bi fi yonent bi sallallahu alayhi indi ah, loolu ku gëm na xam ne moom it mu ngi wala weddi na moo xam na ate boobu ma nekk mbiram yéeféer la wala mbiram taaxóot la ay demee noonu walla dafa gëm ne àtte yoon sallallahu bi mu def am na Euh, loi buñ teg ci réew mi boo xam ne moo gën a méngoog doomu aadama yi loolu ko def wédd na misaal comme ni yàlla sunu borom subhanahu wa taala di wax wasaax wasaax faqtoo aydihuma ate boobu lu wéla sharia léegi nag su fekkee nit dafa wax ne ah, dagg loxo daal dafay manqué nit ki doomu aadama bi nangama nangama maa indi ay raison comme ni nga koy déggee ci mbootaay yi nga xam ne ñoo wan ne ñooy xeex ak yelefe doomu aadama indi ay mbir teg ko wane ne mooy cause yi nga xam ne moo war a tax ba ku sàcc duñ dagg loxoom waaye mën nañ ko tegal beneen àtte loolu moom bit bu ko doomu aadama gëmee parce que sa xolam gëm ne luwaa yi tuwaa bi teg daal moo gën a méngoo ak luwaa bi yàlla teg su boobaa kooku moom it dafay dugg ci gaal googu bu juróomeel bi mooy képp koo xam ne bañ na dara wala mel ah, li yonent bi indi daal dafa jàpp ne moom xëy na am na leneen loo xam ne moo ko war a euh, xaw a gën tuuti li ke waaw donte li yonent bi indi moom mu ngi koy jëfee de waaye nag du jàpp ne daal la euh, keneen indi wala la ko keneen digal loolu daal moo gën a yéen maanaam li ko yonent bi digal wala loolu la gën a jox një ak bu mu mën a doon moo xam si mbiram diine wala lu génn mbiram diine waaye comme gëm na ne daal li yenente bi indi daal am na loo xam euh, xaw na ko seene waaye nag doon mu ngi koy jëfandikoo kooku moom it na xam ne dugg na ci bunt boobu juróom-benneel ba te muy lu doy waar nga xam ne ci suratu tawba euh, yàlla sunu borom subhanahu wa taala euh, mu fay wax ñoom mooy képp koo xam ne dafay reetaan lenn ci diine yàlla ji kem ni nga xam ne moom la ko yonent salaasa indee moo xam si wàllu payga la wala ci wàllu mbugal gala gu mën a doon su ko nikki ki weddee maanaam yonent bi mu ne ku def nangam am nangam mu wane loolu daal xëy na duur lu ma nekk ndax yonent bi da ko def daal wax daal rek wala mu ku def nangam nangam mooy mujjëm fee lay mujj moom gëmul ko waaye mu weddi ko wala mu def lu ko tegtal moom it dugg ci gaal googu dalil bi mooy yàlla ne qul abillaahi wa ayaatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'uun ndax bi nga xamee ne eh, gaa yi ñëw nañ commencé di wax naafiq yi di wax wax wax ba wax ñu ne ko ah innama kunna naqul wa a ñun kat wax dëgg yàlla lii bañ koy waxtaanee jubluñ ci doon lii daal ay fo rek lañ eh, lañ ci jubluwoon yàlla daf ne leen qul abillaahi wa ayaatihi wa rasulihi ma ndax yéen ci yàlla wala kawteef yooyu yàlla indi wala ab yeneen taam ñooy nekk seen yëjjukaay parce que euh, istihza euh, mooy ree yoo xam ne dafay ànd ak ak ñaawale ñi wax ñi waaw lii nag euh, defuñ ko woon quoi nangam nangam waaye dañ ko defoon rek pour waa xam nga rek yàlla ne leen mu ne yonent bi ne ko laa taatadiru qad kafartum baada imaanikum bu leen jàppal ngante de ñii li def mbir moo xam ne ñoo ko tey waaw ñii koy xad kafartum baada imaanikum kon weddi nañ gannaaw boo xam ne gëmoon nañ kon gis nga ko nit mën naa waaye mu def benn charte yoo xam ne mooy tax mu euh, weddi bi juróom-ñaar ba mooy njeber mbokk jullit di njeber mam tasaaroo na lool ak turuñ ko mën a tuddee nag am na na tur yu bare bëri yoo xam nag dañ ko koy tuddee wane na li yooyu yeneen la yu wute ak njabar waaye njabar daal moom bu ñu àggoon ci das boo xam ne njabar lay jàngal dañ ko tudd waaye lépp loo xam ne daal moom dugg na si mbiram njabar rek na nga xam ne loolu moom dafay génnee ni ki ci diine moo xam ni ko ñenn ñi defee wane daal lii ñaari way dencante daal mën nañ ko def comme ci misaal ñaar ñoo xam kii dafa bëgg morom ka te xëy na morom ka bëggul ko mu dem ci nit pour mu boole seen diggante euh, jaare ko ci bunti njabar bu mën a doon yi bu mën doon dafay génne nit ki si mil la yàlla wax na ne wa maa yuallimaani min ahadin xatta yaquulaa innama naxnu fitnatun fala takfur waaw bi nga xamee ne xaaroota ko maaroota ñëw nañ indi seen jafe wax wax defe defe def ba jàpp ne kii yàlla xamu ne wa maa yu'lam min ahadin hattaa yaquula innamaa nahnu fitna ñoom ñi ko doon jàngale sax ki ñu koy jàngal dañ koo xamal ne ko ah mbir mi nag moom fitna ci nekk te it weddi yàlla moo ci nekk waaw soo defee nag bu nit ki jëlee yoon woowu nag sóobu si su ko defee nag xam ne dugg na si bunt boobu ah, bi di nekk mooy nit ki da jéem a feeñal leen si yéeféeri li nga xamee ne bëri na ci réew yëpp ONC daanaka ONC yëpp euh, ngeen jégam si kàddu gi fekkee di moo ko waxee du noonu yi nga fi gis yëpp yi si gën a bëri yéeféeri lañuy dimbale ci xeex jullit yi wallahi alazimi ONC yi nga xam ne ñoo wane ne ñoo xeex àq ak yelleefi doomu aadama yéeféeri lañ ànd ci xeex diine l'islam ak ci anam moom mën a doon nag waaw nañ xool si ONC nag tegal benn ak benn nga xool fañ jógee ñi ko sos li ñuy liggéey yëpp boo ko xoolee rek dañu ànd ak euh, yéeféer yi xeex ci diine lislaam te nañ xam ne loolu nag moom dafay génnee nekk si milla dëgg mooy yàlla mu ne wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum waaw képp koo xam ne da nga méngoo seen mbir ñu jël seen procès jox la ne la kii nga ñëw naan daara yi lii daara yi laa taalibe yi lii taalibe yi dëgg la am na loo xam ne ànduñ ci ndax euh, dajale ay nit ñoo xam ne seen waajur yoru seen responsabilité yow yoru seen responsabilité nga ñi nekk ci mbedd yi loolu moom dëgg dëgg la ñun ak ñoom ànduñ ci waaye nag ñu wane ne jàng alquran dajale ay nit daal Euh, mbir mu war a tëddee noonu nañ leen jël dugal leen ci école bon ñiy dem da sangu da ñibbi seen kër yi di wàcc di ñëwaat ngoon euh, comme projet yi demee noonu ñi nga xam ne ñoo ko yenn ñi ci gën a bëri ñoom mbir yéeféer lañuy ñuy dimbale te wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum te kat inna allaha la yahdi al qawma zalimina nit ki nag bu dee ba mu nekk tooñkat na xam ne yàlla di ko génne mukk ci loolu lay dee juróom-ñeente bi mooy képp koo xam ne dafa gëm ne am na nit ñoo xam ne de li ñu indi ak eh, li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi indi dafa mel ni daal maa mel ni daal li yonent bi da woote daal woote bi du ñëpp waaye am na ñoo xam ne war nañ ca mën a génn ndax seen xam-xam wala seen martaba toll na foo xam ne waratuñoo topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ku ko gëm moom na xam ne yéeféer la donte am na nag ñu ko gëm maanaam ba jàpp ne nit dana àgg ci dara boo xam ne aajo wootu topp yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bis bu nit ki gëmee na am na ko mën a àgg foofu wala ki ko gëm kooku na xam ne si diine fukkee ba si fa lañuy mooy nit ki waxtu woo dëddoo si diine yàlla ji xam luhu ko te xam lihu ko nga xam ne da ko bàyyi wane ne daal mbir moom a yi diine ji daal moom moom duwul lu ko yitteel du ko jàng du ko jàngal te am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla seen doom màgg duñ leen jàngal dara si diine dem bañ doon màgg dañuy bëgg leen a bàyyi naan dañ xam seen diine fan lañ ko xamee yàlla mu ne walladina kafaru amma unziru mu'ridun waaw mel na ni soo baa ngi bëgg gudd te bu guddee du neexal loot comme ni ñu leen ko waxee woon ñu ngi jégalu mbokk yëpp waxoon nañ ne mën naa ay baat yoo xam ne dañ ko tudd te duñ ko firi yaakaar naa dangeen ko gis ak loo xam ne dañ ko firi te duñ jàng aaya ba diggoon na leen ko waxoon na leen dana am son yoo xam ne dana gudd te wax ji dana néew lool yàlla dogal na sin xam-xam ak suñu eh, eh, néew ak gëstu waral na mbir moom am waaye daal fi ñuy jeexal wa man adlamu mimman zukkira bi ayaati rabbihi summa arada anha inna minal mujrimina na foofu la ñuy yem ak yéen di sant mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci groupe bi yëpp waaye li leen wax daal mooy mbir lépp loo xam ne daal moom day euh, firi euh, baatu shahada an laa ilaha illah wa moom bëri na waaye nag jullit bi nag war naa fexe ba mu moytuloo boppam mu ragal yàlla ragal boppam ragal bakkanam ba muy dugg ci nga xam ne mën naa waral mu dugg tàbbi ci meram yàlla wala ci mbugalam yàlla lépp loo xam ne juum nañ juum nañ ko ci yàlla nañu ko yàlla jéggal te mbokk yi ngeen jéggal ñu ko lépp loo xam ne wax nañ ko muy njub ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu ci tiyaaba te boole ñu ko seen mbokk la Aliou Cissé Gambia wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu